waaw man nag euh, maay Khady Camara présidente association Vacances Vertes. d'accord ndaxte fa ma présenter aussi association bi nga xam ne moom laay jiite. depuis 2017. ñuy xeex lépp lu jëm ci wàll aar ak sàmm suñu alam fii ci Sénégal. Mhm. mais aussi aar ak sàmm lépp li nga xamante ni aussi mooy àq ak yelleef jigéen. Mhm. ñi nga xam ne ñoom euh, lii di effet changement climatique def leen laal bu baax a baax a baax. Mhm. Euh, ci loolu question bu ma neex nga ma posé. Euh, ndaxte vacances vertes depuis 2020 dañu réorienté suñu projet jagleel ko li nga xamante ni moom mooy jigéen ñi mhm. ndax dañoo seetlu ne euh, jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci àll bi euh, li nga xamante ni mooy effet changement climatique sonal na leen lool terme justice climatique nag boo ko déggee xam nga bu ñu nee justice rek mhm. mooy injustice mhm. am na injustice boobu nag li ko waral mooy Afrique bu ñu ko xayma 4 pour cent kese lay produire ci li ñuy tuddee tooke yu bon yooyu ñuy tuddee gaz à effet de serre. nga xamante ni tey moo lëmbee àdduna te moom moo tax catastrophe yi ñuy dund yëpp ci àdduna bi ñu koy dund. crise yi ñuy dund yëpp muy crise économique bi ñuy dund sax crise environnementale la boo ko xoo boo ko saytoo ba xool ko ba ci biir. donc euh, ñun dañu ne Afrique bi nga xamante ni 4 pour cent rek lay produir ci gaza à effet de serre yooyu 96 pour cent yi. ñi nga xamante ni ñooy réewu taax yi ñoom ñoo koy produire yàgg ko produire nag depuis ci révolution industrielle tey jii loolu di gaañ suñu askan di gaañ suñuy njaboot moo indi sax li nga xam ne tamit mooy immigration clandestine bi donc loolu yëpp ñun dañu leen tuddee sax ay réfugiés climatique xale yi nga xam te ne ñooy jël gaal yi di dem parce que mbir mi ni mu waroon demee développement bi ni mu waroon doxee moom moo sooxee ci presque secteur yëpp mmh. te li ko waral pour ñun environnementalistes yi mooy euh, effet changement climatique loolu moo tax ñu ne dañuy réclamer justice climatique parce que ca COP 21 en 2015 ca Paris dafa am ay accords yoo xam ne dañ ko fa signé woon ñu ne woon ñëpp nañu engagé wu daal di fexe ba wàññi li ñuy produire ci tooke yu bon yooyu ñu tuddee gaz à effet de serre parce que experts yi nga xam te ne ñoom ñoo seen xel màcc ci wàllu environnement ñu tudd leen des experts du GIEC dañ nañu woon euh, il faut que ñu réduire suñuy euh, gaz à effet de serre ba 1.5. léegi 1.5 boobu dañoo seetlu ne depuis 2015 ba léegi kenn respecté wu ko. rawatina dëkk yi nga xamante ni ñooy dëkk yi gën a mag ci àdduna bi. muy Amérique muy France fépp réewu taax yi mënuñu fexe ba respecté loolu looloo indi comme pandémie yi ñuy wax parce que experts yi ne woon nañ ñu ne. bu fekkente ne jëlul leen seen matuwaay bu fekkente ne respecté wu leen ñun conseil yi ñu leen jox dina metti lool wante dafa am ay yeneen rapport yu yoo xamante ni aussi dafa génn di wane ne que mbir mi Afrique moo koy gën a subir te ni mu koy subiree dafa métti kon loolu nekk na tooñ tooñ boobu nag moo tax tey vacances vertes takku ba dëgër ànd ci nag ak ay partenaires partenaire bu bees boo xamante ni ren ci troisième édition bi loolu daf ñu daf ñu neex torop parce que neex na ngay def liggéey nga dem seeti ji ay nit waxtaan ak ñoom ñoom ñu nekk ci même combat bi ñu ne la li ngay def neex nañu waaye bi yoon bu ñu lëkkaloo woon dina baax ñu lëkkaloo ceeg euh, ONG bu ñuy tuddee natural justice xam nga ba léegi justice mu ngi ñëw donc ñun ñoo lëkkaloo ren vacances vertes ak natural justice initiatrice bi nag ci euh, Sénégal première marche historique des femmes pour la justice climatique man Khady Camara en tant que écoféministe man maa ko initié woon euh, ci loolu kon tey mbégte laay am am partenaire bu mel ni Natural Justice nga xamante ni dafay xeex lépp lu jëm ci àq ak yelleefu communauté yi maanaam ñépp ñoo ci bokk mag xale ndaw jigéen góor ñépp a ci bokk dañu war a xam seen àq ak seen yelleef ndax ñoom li ñuy gën a xamle li ñuy gën a jàngale seen formation yi ñuy gën a def ci àll bi pour communité yi mooy ñu xam lan mooy droit de l'environnement donc tey mbégte laa am bu mag am partenaire bu mel noonu ci troisième édition de la marché des femmes pour la justice climatique à Dakar